ñaar yu dencante bu ñu xasee am nañ xam ne yàlla boole na leen sekkare yu biir yoo xam ne képp ku ko ci génne yàlla dañ la mbugal yonent bi nee na nit ki yées ci nit ñi mooy nit koo xam ne day séq ak lañ séq ci seen biiru néeg nee na mu génn di ko nett yooyu dañ bàyyi xel ne ak loolu ci mën a dugal ak doyee di la waaye dundundam nit bëggu njàmbaar tax mu ñëw di nettali di wax yam doon seq soxnaam ak doyade la te day tax nga bokk ci yées ci nit ñi waaye nag ñaari way dencante it bokk na ci seeni warteef ku ne na bàyyi xel moroomam ci boppam soxna day waaj di defaru ngir boroom kër waaye boroom kër day waaj di defaru ngir soxnaam ngalla waaye bu ci kenn mel melokaan woo xam ne ka ca des ma ngi muñaa wéyaale loo xam ne bis bu amee pexe génn ci loolu du mat bàyyi xel la ñu xam ne it nag bu dencante amee ñaar ñi ñoom ci seen biir néeg lépp dagan na lu dul jaxasoo fi lislaam tere ku fa jaxasoo mooy foo xam ne doom mënu faa sosoo waaye nag nawet bi seen biir du lu ñuy nettali du lu ñuy waxtaane du lu ñuy filmer du lu ñuy enregistré bàyyi xel lool bu sëy xasee amit nag goroom am na gisee lislaam fonk sëy tax nag saa boo takkee soxna doomi diw doomi nit ak jigéen nga takk sox doomam sa yaay ba àddina tukki doo doo doo sëy ak moom doo sëy ak ndeyam fii ak wëccoo doomam it doo mën a takk jeneen doom walla sëtam ndax war ma ci sëy it ci la askan di saxe nit ki saa bu takkee soxna am ak moom doom wala doom ji eh, soxna si am soxna ci am doom ci biir bu bugg sëy bi mooy bàyyam charia li mu xam mooy al waladu lil firaash kon nañuy moytu it nag mere nit rek mu am doom nga ne juruma doom bi loolu ci charia ku ko wax danañu la caw juróom-ñett fukki yar ndax yàqu der la doom ñu judd ci bu mu sëy bàyyi ma ko jur doom juddu ci buumu sëy bàyyi ma ko jur lii tax ñu dàq ko mooy ñu dem ci jàkk ja ginnaaw bu ko laabaloo ñu waat góor gi waat ñeenti waat na juruma doom ji bu fekkee maa ko jur wax ne rëbbum yàlla yàlla na ci kaw soxna si ne waxut dëgg ñeenti yoon bu fekkee ne wax na dëgg yàlla na merum yàlla ci kaw subaa ñu tàggale leen waaye bu dul loolu moom taxaw fi nga taxaw rek ne juruma doom ji du lay doonte gis nga ndaw si mu jàll njaalol def waaye doom ji sa doog yooyu dawata moytu bul mere nit mukk bay ba génne ko ndax lislaam day bañ kuñ génne askan moo taxit nag doom joo xam ne juddugul ci yoon amut askan góor gu ñëw ni maa ko jur loolu reconnaître reconnaître nga ne mooy nga yàlla la waaye duñ ko jëf ci yoon lay juddu ñu jàppe ko doom waaye bu fekkee ne judduwul ci woon lislaam du nangu jooju dañuy wax ne kooku santu ndeyam lañ koy jox ndeyam la bokkal ak ñi mu bokkal ci wetu ndey amul meneen mbokk moo tax yu mel noonu it ñëpp war di moytu li tax takk soxna baax mooy mën moytu yu mel noonu bokk nañ ndax ñaaw téef la boo xam ne bu ñu gisee yenn sufiyank yi di wax naan doomi njaalu dem aljanna xeetu xuppe la rek liñ jublu dëgg-dëgg mooy dañ ne ñoom doomi njaalu maas yemuta jassida la maanaa jëmm ju tax joo xam ne mooy yàlla amu dara am ñoom lañuy wax ne kooku yeyewul yeyewul yërmaande yàlla doonte sax dëgg-dëgg moom yoonam nekku ci waaye day sëmbal day day jëmbal ak mooy moo tax lu ma tamoytu la te bokk na ci nag li ci musal nit ñi takki soxna kon ku ci mat takk na dem takki soxna du ci desit nag am na loo xam ne baat bi dañ koo xaw a yàq tamit lu baax muy fiir fiir maanaam baax mi mu yor góor gu ko def doo góor jigéen ju ko defut it motul li nga doon waaye nag ñu xàjjale fiir ak ñaaw njort bokkuñ fiir mooy ki la yàlla booleel nga bañ lenn lu ko yàq nga bañ lenn lu bon lu muy dugg góor day fiire njabootam yonent ay salaam waxoon na ne eh, ñett nit ñi ñoo xam ne duñ tàbbal jàmm bokk na ca kam waxoon day yuus ñu ne ko mooy kan mooy mooy góor goo xam ne daal këram day bàyyi góor ñi dugg rek lu tere kenn du lijjanti luñ fay wut mooy fiirul ci njabootam waaye ku ñëw sa kër di xale bu góor nuyu la dugg ci biir bu subaa bu dellusee nekku lay wut dee soxna lay wut nga gëstu yi ñu waxoon bu jaaree yoon nga laaj njaboot bi ñu bëgg may leen aw yiw la te loolu ci juddoo te moytu nag yi xew gàllankoor gone ba nga xam ne am na dëkk boo xam ne ci senegal mos nañ wax ne ma ñoom dañ fay dañ fay nekk di ngoro seen doom nee na ñu lay sonal làng dañoo mujj daal ne léegi daal ñun may gu njëkk la ñuy def mooy dañuy ëmbal ndaw si ëmbal lañ tuddee may gu njëkk nga xam ne saa bu amee doom nga génn ko rek fa aw ñu may la ko ndax naan ah xas ne am di bay ba ñu maye leen loolu nag jàpp naa ne ñaaw teef la woo xam ne kenn wur ci àgg kon ku ñëw gëstul kum doon bu jàggee may ko ñu ànd ngir yàlla buñ juree doom barkeel ngir yàlla kon jigéen na fiireer rees sax borom këram ba bu def bu mu def lu defuut waaye góor it day fiire waa këram ndax yéen day salaam mas naa wax ne ku ñu wax saxd daa fiiroon lool ba jëggi dayoo mu ne yéen a ngi yéem fiir ku saxd de waaye maa ko gën a fiir de te yàlla ma gën a fiir sama sa wax loolu loolu kon ñu bàyyi ko xel baax baax mbokk yi bi ci desit nag ñaar ñuy dencante lii tax seen sëy mën a yàgg mooy nañ rafet njort rafet njort mooy ab sëy nit du ñaaw njort ci waa këram gis na ci lislaam day tere sax bu njëkkoon day tere nga tukki ñibbi si guddi ndax bëgg a bett sa waa kër ba xam ci lañ ne lislaam da koy tere day tere nga tukki ñibbi si guddi bett sa waa kër xëy na bu njëkk booba téléphone amul waaye li mu bëgg a wax rek mooy yow boo tukki woon bay ñibbi si na wootee ne maa ngi ñëw heure sangam laa yegg sa waa kër yëg na yaa ngi ñëw waaye yoon la ku ñëw dugg ci kër gi ba xam ndax ñi ngi def ab sama wala déet mook wut caméra waaye sa kër ngir contrôler sa kër ñoo yem ñaaw njortu la ab jullit du ko def loolu nag bokkut nga wut ko ngir sécurité waaye bu ñaaw njort mu ko tax sa waa kër daal am na ci ñoo woo leen léeg-léeg dañuy génn kon naa wut caméra teg fi xam ki du koy génn loolu ñaaw njort ab jullit du ñaaw njort waxoon ne bu kenn ci yéen tukki ñibbi guddi di fëgg waa këram ngir bëgg a xam ngi ci ay ay la bi ci des it nit boo ko takkee yaa ko war yor na soxna ku ko takk yaa ko ameel cen ameel ko ab dund ameel ko am kodd ameel ko dëkkuwaay bokk na ci nag mbaax di nga xam ne jigéeni senegal ñu mbaax nañ ko ñu bari fekkuñ leen ci mooy fi ne dëkkuwaay yi ñu wutal soxna yi seen àq buñ ko laajoon dana metti ndax dëkkuwaay mooy néeg ak la muy àndal waañ ak wanag ku ci ne ñoom daa war a am lool même boo amoon génn kër kër gu ne daa war appartement kenn ku am yi fi bokkul waaye ndeysaan ñoom dañoo baax dañuy bokk wenn waañ bokk wenn woon ak di sànnante wattu ndeysaan ñu baax lañ yàlla yàlla sàmm leen ndax bu ñu laajoon rek mu metti sañ nañ ko nag kon yooyu ñu bàyyi xel ne ku am soxna yaa ko ko ameel soxna yit nag bu ko neexee tegg yooyu bu ko neexee am këram teggil la dëkkuwaay bi bu ko neexee sax mu teggil la dund bi ne la man kat am na lu ma jàpp yoral mu sama buum rek li ci des de may naa la ak ayam sax bu ko neexee maye ko bu ko neexee it jaay soxna Sawda moo doonoon ñaareelu soxna Yonent bi salaam ginnaaw bu soxna Xadija faatoo moom la njëkk a denc bi mu nee ba doon mag daal xëy na Yonent bi sama ay may naa ko Aïcha nga xam ne Aïcha ñaari ay la ñu boole. day jël ayam jël ayuk sawda waaye dagan na it nag soxna dem ci jëm ne ko mu daal daa bëggoon tey damaa soxla sëñ bi léegi lu mu lay neexal te nga may ma sa ay gi bu leen jox ma nangam mu jox ko moom ay dara nekku ci la waaye di nuyu tamit monsieur le maire ki nga xam ne mooy Galo Ba ñu yàlla teg ci bopp dëkk bi muy xaritu gox bi di xaritu mbooloo mi nga xam ne ñoo taxawal lii ndax yàgg a fee dikk ca boobu yorugul ndombay doon meeru dëkk bi kon ñu ngi koy dalal mook délégation bi mu àndal yépp waaye di yëkkati suñuy nuyoo yu gën a kawe tamit di ko jëmale ci sëriñ Abo Sall mi nga xam ne nii moom lañu ñu bés bi di barab la boo xam ne nii ni ko sëriñ xaw su waxee ci tàmbale bi barabam la ndax gannaaw yàlla bi ñu amee bi mu amee ndigalu kilifa yi moo fi jëmmal jumaa ji ci ak njàmbaarteem kon buñ ko tuddee lu ñuy taxawal fii lu yàlla la lu jaadu la ñuy ñaan kilifa yëpp ñu ñaanal ko yàlla yàlla gën a dëgëral taxawaayam ndax jàmbaar la waaye di yëkkati suñu nuyoo yi gën a sell di ko jëmale ci sëriñ Mbàkke Abdourahman di suñu ustaas daanañ ko fekk daara maarif mu ñuy toppal di ñu tëralal ni ko sëriñ xaw su waxee ñëw na ci këram ñëw na ci ay bokkam ñëw na ci barabam muy koo xam ne ni yoonu murid yépp ñoo koy ndamoo ci xam-xamam ci dëggoom ci gëm li muy wax ci dund li muy jàngale moom lay dund boo ko xoolee ci jëmmam ak ci jëfam fekk ko ci kon ñu ngi koy ñaanal sëñ bi ñu ngi lay ñaanal bu baax di sant bu baax suñu mbokk jigéen yi nga xam ne nii at mu nekk ñoo fiy taxawal lii sëñ Thierno nee na mu ngi leen di sant na ko sëñ bi waxee rek na ko suñu mbokk Abdourahmane waxee rek fii loolu moo fi yàlla pàkk bu sedd bu sell la pàkk bu tedd la pàkk Sëriñ Tuubaa la kon ci loolu nga waxaat ne responsabilité bu mag la ndono lu mag la loo xam lu ñu war a fonk la mu mel ne ci ay loxo yi kilifa ne woon yàlla di dox ci coobareem ba mu yegg si ci loxo yi ñi ngi jéem suñu kéemtalaay kàttan jéem a téye ndono loolu ci dundal barab bi mu tax sëñ Thierno wax ne nañu fàttaliwaat li nga xam ne nii mooy yàlla ci suuf sii nga xam ne la Sëñ Tuubaa ganee àdduna saa su nekk du dañ mukk di ko dëkkal ci suñuy nopp ñu koy wax muy xormay bu barab bi xormay barab bi surtout suñu mbokk jigéen ñi ñu fàttaliwaat ne fii barabu Sëñ Tuubaa la fi la ganee àdduna bi bi mu taxawalee yoonu murit fii la dikk fii la yoonu murit mën nañ ne fi la màggee fii la préparé dem sañc Daaru Salaam sañc Tuubaa kon barab bu tedd ngi nii boo xam ne bu mot a ormal la xorma gi nag weesuwut lépp lu lislaam di bañ rek ñu ko fi bañ luy cant la ak it kàddu sàkku ñaan ndax barab bi moom attan na ñaan gu ne barab bi day sunu barab ni ko sëñ Amar waxee rek fii moom xaaruñ ba nekk maire doog fee ñëw amanteeg waa Mbusoobe wala jëf ci bi di wax ne dañuy sant rek sant jigéeni Mbàkke yëpp sant waa Mbàkke ci seen kóolute ak yaakaar bi ko di beneen ak cant soxna yi organiser conférence samay jigéen lañu sunu lépp lañu di rafet lu baax a baax seen taxawaay ak seen yéene ci mbusoo bi ak ci Mbàkke yépp seen taxawaay rafet na seeni jëf mate na ko dañu ñaan yàlla ngeen gën koo man ñu gën a teewe bis yu mel nii santit yàlla ba mu ñu baaxee ñu at yi weesu yëpp ñu daan ñëw di ko teewe te takk yoon ndomba tànk meeru Mbàkke te yàlla baaxee ñu tey ñu ñëw nekk meeru Mbàkke ci seen confiance ak ci seen yéene ak seen yaakaar yaakaar jooju nag yàlla ma ko yàlla das ñu ngi sàkku ci yéen yëpp ñeen ñaanal ñu yenn bi gën a diis waaye ñu attan ko nag ngir mbàkkee am fu mën a yegg. sëñ aboo nag mi ngi leen di nuyu di leen siyaare ah tey xam ni cër bi ngeen ko jox doon cër bu rëy ci moom ndax lu toll ni mbusooy bu xewlee dara cër rek suñu Abo Sall ah ab xolam sedd na moo fa waroon teew moo ko njabootam gépp waaye xañ na ay gàllankoor rek tey jaaxanaa fu ma teewal. mën naa man sëñ doom maa fi doxal sëñ Abou Sall fii kon na bu fi teewalee mel na ni teew na fi ma Massamba mii rek bu fi teewoon rek mel na ni ñëpp teew na fi ndax toujours bu may yebal ci mburóo bi fii danaa ma jaaral ci sëñ Sàmba moo fi loxo moo fi buntam ñu ñëw it fekk fi suñu sëñ sëñ Ceerno nekk fi ak sëñ xaw su buso ku nekk ku ne mën na ko fa teewal kon nag boo ko fi teewalee rek ah dañ ma sagal jox ma cër rek waaye wax di yàlla li ngeen fi nekk wala Euh, Mbacke dëkk Mbacke Mbusoobe nekk responsable politique fii ci Mbacke Mbusoobe waaw conférence nag chaque année dañ koy amal fii ci Mbusoobe thème bi nag tey ñu ngi ko doon wax ci wàllum sëy Euh, góor nan la waree yor borom këram ak euh, borom kër nan la waree yor soxnaam euh, thème bi nag amoon thème bu solo suñu Mbàkke Abdourahmane yoroon ko doon ko waxtaane tey jii si Mbusoobe mu amoon solo ndax mas gis nañu dëkk bi léegi mariage dafa am problème de trop moo tax ñu tànnoon thème boobu pour waxtaane ko jigéen ñëpp mën cee jëriñu góor ñëpp mën cee jëriñu tamit mariage gën a mën a defarwaat waaw nuñ ko gisee rek mooy kon dëkk bi nu mu yëngatoo nii ci wàll loolu ñun ñëpp dañuy jàngalaat ndax lislaam ci lislaam la ñu dëkk tey teguwaat lépp ci mbir mi ndax fi ñu xoolee dëkk bi kër Sëñ Tuubaa la moo taxoon ñu gën a bëgg a yeewaat yeneen jigéen ñi na xam ni dëkk bi e, ku nekk na teguwaat ci yoonu lislaam la bu ko tegoo yaakaar naa yu bëree bëri dina dina tax dina defarwaat looloo taxoon nag ñuy soññaat jëlaat thème bi gën kaa ñaaxaat suñu bokk jigéen ñëpp ñu ñu jàppaat si xool xam ne suñu Mbàkke li mu fi waxtaan tey ji buñ ko tegoo ci yoon ñun ñëpp bi nu milieu waa kër docteur yi tamit ni ñu amee problème xëy na jumte day am sax waaye nag suñu tegwaatee suñu mbir si xam-xam rek lépp dina tegwaat ci yoon waaw kon loolu dañ ko doon sàqwaat sàqwoon nañ ko monsieur le maire Galaba ba mu nekkee ci campagne dañ koy dañ koy sàqwaat ndax Mbusoobe xëy na population bi léegi dafa yokk moo tax ndax dafa yaatu ba dem ba ci kër suñ tubaab bees gi ñuy léegi nag moo taxoon ñuy sàqwaat pour mu soobee doon quartier dañ koy yeesalaat di ko sàqwaat monsieur le ndax waxoon na bu toogee ci maire bi li muy njëkk signé mooy signé këyit boobu lay njëkk signé muy bu soobee mu def ko quartier dañ ko koy yeesalaat di ko soññaat pour mu defaatal cadre yooyu mu ñu bàyyi woon daal ñu ko ciy gën a soññaat pour mu def ko incha allah Oulimata Dieng euh, madame Bousso fii ci Mboussobé